waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp mm, di présenter sama bopp man la Ama Jaxate euh, dëkk Koungheul Santhie xar Yàlla waaw di représenter euh, nekkoon ci benn camp politique tey nag damay def sama benn déclaration di jógee ci camp politique boobu euh, li may njëkk a def nag mooy remercier leen gërëm leen ci camp bi may jógee noonu. waaye bis ni ki euh, rali naa ci camp boobu ñëw soutenir Babou Khady mooy ki nga xam ne moo nekk ci list ànd nawle euh, li ma gën a convaincre ci Babou Khady mooy que ne gis naa ne euh, jeune bu am engagement la te gis naa ne tamit euh, département Koungheul moo ko ñor euh, gis na gis naa tamit lim réagir avant muy laajte gis naa lim réagir ci bi département bi loolu moom ma gën a convaincu ci moom ba tax ma ñëw pour ànd ak moom liggéey pour ñu jëmmal liggéey bi kanam. man ku ma xam xamee ma Koungheul Santhie xar Yàlla tey ñëw bi ma ñëw fii nii dama ñëw fii def benn point de presse rek waaye am naa mbooloo boo xam ne. Euh, foo ko natt rek weesu na ko ñoo xam ne ànd na ne man jeunes yi am engagement ak jigéen ak ki góor mag ak ndaw ñoo xam ne man la ñuy déglu ci lépp. gërëm euh, surtout maa yow mi Daouda Seye di la gërëm bu baax euh, di gërëm nag di ji Sirif mi nga xam ne moom laa taxawal fii di ko gërëm bu baax di ko sant di gërëm staffu Babou Khadija bi yëpp di leen gërëm di leen sant di nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo ñëpp di feddaliwaat suñ kollëre ak euh, responsable yi nga xam ne ñu ngi fii ci Koungheul ak euh, département bu Koungheul yëpp di leen ñaax vraiment ci ñu bàyyi xel bu baax a baax te jii nii ci camp biñ nekk nii nekkoon ci camp bàyyi camp boobu ñëw ci camp bi tey li ñu war mooy liggéeyal camp bi liggéey bu mucc ayib eh, bu nuyoo ñëpp nag di nuyu sage yi nga xam ne tey jii ni dañuy seetaan vidéo bi di nuyu Koungheul yëpp di gën a dolli tamit nag la tranquillité parce que loolu tamit ci liggéey bi la bokk xel ak euh, yar ak teggin di ñaan yàlla yal na yàlla jolli jàmm ci Koungheul yàlla na yàlla def jàmm ci région de Kaffrine ci senegal ci monde bi yëpp yal na yàlla dollil ñu jàmm su ko defee mané nak politique du eh, gis-gis la eh, honorable mi nga xamné ñu ngi jël engagement département bu Kungal ci parce que comme je vous l'avais dit nous allons nous faire nous, allons tout faire pour ne pas laisser nulle place où la passe et repasse vraiment pour fal ko le 17 novembre. lum jar incha allah dinañ ko def. ñu liggéey ci nag liggéey bu rafet parce que communes yi yëpp daanaka man mii xeebu nga gis nii tey dox naa ci lu bëree bëree bëree bëree bëri ndax loolu moo ñu war di ko gërëm di ko ne nag tey jii nii liggéey boobu la lañ sekk ak moom sekkuma ak moom tey taxaw ci presse di ŋaññi kenn taxaw ci presse di wax kenn lu ñaaw du ben leader bo xamne tay ji ni war nañu ko jaral amut ndax c'est nous dans nous ño bokku kungal politique day wess ñu bokkat kon may nuyu nyep di nyep, ñep di sant ñep comme Olof ndjay faral di faral di nan reccu bo gis nak dëgg-dëgg day fekk jëf wees moo tax jëf yi ñuy jëf war a leer war a set te yaakaar naa ni ama mi nekk sama wet waxtaan nañ juboo nañ joxante nañ loxo pour liggéey Koungheul Santhie plus particulièrement foofu sa yàlla joxante nañ loxo pour liggéeyal ba baabu Khady man lii laa xam ci politique décrocher les gros électeurs ñi nga xam ne ñu ngi fii waxtaan ak ñoom mais pas taxaw ci média bi vraiment di ŋàññi kenn man doxewuma noonu su ko defee dañ ne su yaay taxawee di compter ñaata yoon la doomam saw si yéreem day fekk doom ji guddul fan ndax bu guddee fan du mun a compter ñaata yoon la doom ji saw ci kawam kon yaakaar naa ni tey point de presse bi dinañ ci jàngatee lu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla li ñu soxal mooy nuyoo commune bu Koungheul di leen tàllal loxo ñoom ñëpp mag ndaw kilifa diine yi ñu jàppale ñu pour suñ honorable falu di si woo commune de Makayob di ko defee niñ ko defee Koungheul di woo ñëpp commune de Guenté Pathé di woo ñëpp di leen tàllal loxo dem ba Missirah Wadène tàllal ñëpp loxo wàccaat Saly commune ñu tàllal lépp loxo demaan ci commune bi nga xam ne tey yaakaar naa ne papay honorable moo ko jiite di tàllal ñëpp loxo ñu dimbale ñu ñu fal suñu honorable bii jógee fa dem bëri bu escale dem ba Yida wacc ci Lour Escale talal lan ñen ñen yépp loxo ngeen dimbalé ñu ñu fal honorable ndax nak dañuy sante tamit leader ñëpp di ñaanal leader yépp jamm yalna yalla jall doli jamm di ñaanal nak suñ leader bi ñu top ndam di ñaan yalla doli sutura maa yemal fi kàddu gi di la sant yow mi comme ni ma la waxee woon keroog yal na yàlla guddal seen fan yal na la yàlla yàlla wéral ndax lii tamit vraiment liggéey bu mention très spécial à vous merci la presse merci Kungel. vive Bab Kadou vive babu Khady honorable député à l'Assemblée nationale incha allah le futur honorable Vive Babou Kadidien, je vous dis merci bien.